ngeen yoroon 2019 di ko dóor ñenn ñi est-ce que tey ji du leen dal yéen euh, waa CAP 2024 li ma bëgg a wax mooy parrainage bi ñu ko instauré ñu bëri segg na sànni leen fële tey jii nii yéen euh, def seen dossier déposé ngeen ko mais li xewoon 2019 éliminé Gakou Hadjibou Soumaré Bougane Gueye mën na dal seen kaw euh, je ne pense pas parce que quand même ñun dañu dañu dañu def de façon très rigoureuse on a fait un suivi on a travaillé on est dans le Sénégal on est chercher des des donc am na loo xamante ni ñun mënuñu daal parce que jot nañ ni. donc wóolu ngeen système bi parrain yëpp. wóolu ngeen système bi non non du système parce que aussi problème bi souvent c'est à ce niveau. non du du du système du ñun d'abord. Euh, la première responsabilité ci ñun la nekk. Mhm. ñun ndax wut nañ ay parrain. ndax dem nañ Sénégal wut ay parrain ndax ni ñu ko remplir baax na on s'assure d'abord parce que booy dem ci combat. Mhm. il faut s'assurer que yow sa arme yëpp baax na. bien sûr parce que am na loo am a maîtriser mhm. dem nga ci nit ñi ndax yow dem nga ci nit ñi comme disait Sun Sey booy xeex kenn yow il faut que tu sois sûr de ta force. yow dem nga ci nit ñi am nga ay parrain sa parrain valable nañ ni nga ko defee ni nga ko dugalee baax na d' abord loolu c' la première étape. donc c' est pas du taf ensuite ñu dem déposer au niveau des institutions maintenant nag dafa am loo xamante ni euh, dafay génn say loxo. Mhm. une fois que tu déposes ça dafay génn say loxo. justement foofu nag la problème bi confiance c' est la confiance qu'on avoir à nos institutions. Mhm. du du du c'est pas c'est pas du de la magie c'est pas autre chose nous pensons que ay sénégalais ñoo fa nekk comme yow comme man qui qui sont des hommes de valeur qui sont des hommes et des femmes de valeur qui ont besoin aussi ñoom entrer dans l'histoire mm-hmm. qui ont aussi qui veulent participer à la stabilité, à la paix de ce pays et nous pensons qu'ils vont faire leur travail en leur intime conviction et en âme et conscience parce que loolu aussi dafay bokk ci li nga xam ne moom mooy doxal démocratie maintenant nous on n'est pas un bulldozer pour ñu jaar ci kaw institution yi baaxul dara baaxul parce que soo gëmul ni lii baaxul rek doo ci dem parce que suñu suñu gëmoon ni suñu yóbboo suñu ay parrain conseil constitutionnel dinañ ci am lu ñu correctement et à partir de ce moment nous nous serons nous nous passerons